di sant borom bi subhaanahu wa taala di gën a topp di ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di def sunu yaakaari teeg ëllëg di seexuna ahmadul xadim di ñëw ngir fàttaliku waat sëtub sëriñ Tuubaa boo xam ne doonoon na jàmbaar ci waar wi doonoon as gor doonoon ab jullit doonoon murid de sadixa di ku ñeme woon njaboot di ku bari woon yitte di ku amoon jàmm di ku yéene woon nit ñëpp teraangay àdduna ak alaxira kooku di soxna Mame Bousso Bally moom soxna Maymuna moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul mbokk yi bis tey. di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar ci atum 2018 la ñu sang bu tedd bi tàggu woon di naga daaw ñu del siwaat ci fukki fan ak juróom-ñaar ci safar 2019 di at mu jëkk mu am ko ci jannatul firdawsi ñu ñaan jullit yëpp maase bàyyiwaat ko xel ci bis bi fàttaliwaat ku ko ci ay ñaan jàngataat dundam gu am njëriñ googu jàmbaar jooju nga xam ne moom soxna Bali mi ngi feeñ jamono ci atum 1943 ci keppaaruk Serigne Cheikh awo Balla moom maam Thierno Ibrahim borom Daarul Moxti ak soxna Maymuna bintu Cheikhul Khadim di am caatam Cheikh Mahamadul Moustapha tudd ko tuddi ko soxna jaaratullahi Mariama Bousso ñu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna yëpp ci wàllu jàng alquran ci wàllu tarbiya ba ak tarbiyaam àgg ñu teg ko ci loxol Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde faatma mu di fa liggéeyal yàlla ba yàlla jox ko fa njabootam gu tedd gi yàlla na leen fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli seen wér mu di soxna Aysatu ak sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ñaan yàlla mu gàttandu ak yërmandeem sëriñ Isaaqa ma doon seen rak soxna Bali dundal ci yoon wi lu bari ci ak bokk bëggoon lool mbokk ci ñeme woon ko waaye doonoon jaboot it ju ju ju yaatu mbootu doonoon borom yitte ju kawe. doo nit koo xam ne ku ko gis bëgg ko ndax jikkoom ku ko miin dootoo bëgg a tàggoog moom ndax taraangaam wutu waajuram dundal laylatul xadar lu toll ci ñaar fukki at ak nangam bëggoon alxuraan lool jaxasoo woon ak mbooleem njabootuk sëriñ Tuubaa yi waaye jaxasoo woonit nag ak képp koo xam ne doomu africain nga rawatina di sénégalais liggéey liggéey bu rëy ci Touba liggéey ko ci yoonu murit liggéey ko ci Sénégal ba dajale woon mbooloo mu bari moo xam ne bokkuñu ab jubluwaay bokkuñu sax ay waaso waaye ñoom ñëpp ñu bokkoon benn wàccuwaay ci moom ku masaa agsi ci moom jàpp ne yow rek yaa ko moom moom soxna Bali bokk yi muy liggéeyal yàlla ba sun borom subhaanahu wa taala ñëw ab dogalam tànnal ko bis boo xam ne kelo bi malaayikam yërmande ñëw di jël si ruuxam gu sell googu ba wan ko këram gam war a jëm ci aljanna wan ko li koy teeru ci yërmande ak xiiwal a ah, nee na day nakate liggéey ba liggéeyal jeex liggéeyal sëñ Tuubaa moo ci gën waaye wut ba wut jeex wut yàlla rek moo ci gën sun borom tànnal ko bis boo xam ne ku doon tànn mën ngaa tànn sax bis bu rafet waaye du si fii ci ak rafet tànnal ko waxtu muy bis bi mu génne àdduna di waxtu wi sëñ Tuubaa waaj ci fukki fan ak juróom-ñaar ci safar di séentu cërub yàlla bu rëy boobu muy ngoonu ajjuma bët seddi di fukki fan ak juróom-ñett ci safar yoor yoor bi Serigne Touba jóge Mbàkke Baari te na ci la ko yàlla jox adduna ak alaxira jamono jooju yàlla jox adduna ak alaxira la soxna baali di tabbi ci këram gu mujj jëm ci loxol Serigne Cheikh Mouhamadul taxa taxawe ko ak mbooleem kum bokkal sëriñ Touba ci yoor yooru màggalu Touba uufal ko soxna Maymunatu waajuram keroog mu yandu ji firdawsi taraangay màggalu Touba fekk ko jannatul firdawsi mbokk yi ñu toog ci fukki weeram ak ñaar di sàkku ci jullit yëpp ñu bàyyi ko xel ci màggal gi fàttali ko ciy ñaan waaye ñaanal njaboot gi fi bàyyi tàmbalee ko ci sëñ Moudou Mahfouz soxnaa su sëriñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma yàlla dëgëral leen te jàppaleel leen boppam te jàppale mbooleem koo xam ne nag kër googu moo nekk sa kër waaye suuxat nga wëllëre wi ginnaaw soxna Bali seen mbokk taalibe Fallou gala sil moo àndoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.